waa Kayaar yaanu moom yaanu yóbbaale fu neex ndax amuñu dara loolu Kayaar te Kayaar rek a ñu saf Kayaar gii nag yaakaar naa ni ku gis jigéen ñi ni ñu toogee xam ni li nekk gëm nañ te lim nekk am nañ ci yitte de def nañ ci farat yaakaar naa ni boo yeewoo Kayaar 3 heures du matin ay jigéen ngay gis ñu yor seeni siwo yor seeni paan jëm géej donc yaakaar naa ñooñu kuy dimbali ak kuy jàppale yaakaar naa ñoo jara dimbali ñoo jara jàppale amaluñu benn institution financière bor ba ci DER bii ñu leen jox ñu koy fay ni ko war a fay donc yaakaar naa dama naan gàcce ngaalaama seen jigéen ñi kontaan nañ ci yéen bëgg nañ ci yéen dina wax mu monsieur le ministre ñii toog ak ñi ñëw ñi bëggul a ñëw ak ñi waroon a ñëw te ñëwuñu. ci pêche yaakaar naa loo def ci Kayar. sànniwoo ko ci say mbokk nga ko def jigéen ñaa ngi nii nag yaakaar naa ne taxawaay bi am ci sanu wet am ka ci wetu président de république kenn du ko na table ndax buñ gagné élection yi largement jigéen ñii ñoo tax li ñuy xat-xat tey nekk ci jafe-jafe tey nekk ci aw tiis mënuñu woon a bay ñëw teewal leen sigil leen tatagal leen sargal leen ndokkale leen jërë ngeen jëf yéen jigéeni Kayar yàlla yàlla fay leen ci loolu monsieur ministre ñu ngi remercier acteurs de la pêche yi nekk Kayar yëpp collège ligneur collège seen tournant ak képp koo ak ñi xam ñooy rameurs ak femme transformatrice yi yaakaar naa président Mati Ndaw a ngi nekk toog di nuyu micro mareyeuses yi seen i présidente ñu bare bari tey jii bu demee yàlla may leen xel ban boole seen i kuréel yëpp fédéré a pour ànd nekk benn yaakaar naa loolu mooy développement te loolu mooy mën a dimbali état pour ñu mën leen a jàppale ndax pàcc pàcc bu nekk day naqare jàppale mais comme yaakaar naa ànd nañ ba juboo def benn fédération monsieur l'inspecteur jàpp ji ba ñu agsi fii tey yaakaar naa li ci des la balle est dans votre camp la balle est dans camp mooy ngeen génne financement yu am solo parce que Kayar ñu xamuñu financement ministre de la femme Kayar xamuñu fi benn financement te loolu dañ ko war a xam dañ cee war a jot ndax c'est notre droit et on le kenn musu fee dégg ñu ni financé leen ay 30 millions wala 100 millions te ñu ngi dégg ñu ni jigéen ñi Sénégal ñu leen di financé ay 100 millions ay 30 millions ay 50 millions di leen ko jox mais ñoom bokkuñu ci lan moo tax bokkuñu ci nag loolu lañ bëgg à partir d'aujourd'hui loolu soo defee li nga war a def da ngaa war a laaj li war a laaj war a a war a laaj a laaj te le ministre dégg na ko dina ko jotal président de la république mu xam ni Fami Kayar ak ministre de la femme Fami Kayar dañ leen war a jàppale dañ leen a war a taxaw dañ leen war a jàppale